na wooy dafa woy benn bayte bu neex daf na sangara neex ci man jamono bu nekk ci kaas keneen di ma ko jox waaye boo fekk ci jënd ko rek mu wex xat dootul neex moom ngay jób salim yi di ma bàyyi sama kër parce que Babacar ñu ngi gisee alxames ma tukki ajjuma gannaaw la moo ko fa bàyyi moo mbokk yi fi toog yépp yàlla na leen yàlla jàppaleel wërsëg bi hormati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam jaawu ci nuunu yo balaa nekk jaawu min wajhihi lmuniri wa min wajhihi ljamili wa jaawu bil ayaati kama jaau bi yadihi lyumna wabel xasawaati wal ayaati yaa wabel xasawaati wal ayaati yonan wabel xasawaati wal ayaati keegane wabel xasawaati maganeen wabel xasawaati alhaji malik neen wabel xasawaati يا وبل غزوات موطن وبل غزوات موطن وعدل وال موطن وإهداد موطن إلينا ما موطن وألمود موطن من السلوات موطن سلام ديب ذلك الوال موطن يهوب العالمين موطن وإنا نسمع موطن ونسمع يا وطن غزوات وآيات جاءوا كما جاءوا من الوجه المسؤول ñii ñetti oote yëpp si daañu Malick dëxiñ na ko ci wenn way bil xasawaati jaawu baxdahum wa baxdahum jaawu bil ayaati wa baxdahum jaawu min wajhin jaawu wuy si nañu nabi par force ñenn ñi bil xasawaati ci ñaaf ñàppati jaasi yu dal te jàmbaar yor ko buñ demee ba ne xaax rek di jéem a upp di yéem a tekki ne dina dalee sa gawar loolu sax guddi sax bëccëg jaas yi dal si naa lu jaas yi mel ni gaynde am sa tollu ko fi gën a mel ni gaynde jaafar gën leen a gaaw si naa mën ko ko seen taw taf taleen jaas yi rek amuñu fu ñu nokkee bañ ne woo wow laay laay la laa wooy laay laay la laa xam ay la yow noonu laay laay la laa ñooñu la leen indi bil xasawaati jaaw ma def ñenn ñi jaaw bil ayat aaya yu toftale te ku yu diis yu metti santaane bu ñëw mu teg ci dige dige ba boo ko xoolee lu santaane ba diis diis mu oyof ci yow ngir dige ba lu mu tere lu mu nekk lu lu mu tere lu nekk mu teg ku teg ci la mu la tere lu mu neex neex ci bakkan boo xoolee tëkku ba tey gor mu mu si nga sib ko yàlla lu mu santaane ba noppi santaane wul noppi moom moom nit ñi waaye ba mu ne def leen yamu ci dafa def dafa dige li mu la sant nag lu mu diis diis boo xoolee dige bi te gëm ko dootul diis ci yow amul lu mu tere nag noppi lu mu tere lu mu doon tëkku na teg ci soo xoolee tëkku ba lu tere ba neex neex naqari ci yow jaawo bil ayaati baadaw ويوم قمطريرا أكل ما نلجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها أكو سق إلى من قسم لا يأكله إلى القاطعون أي يتخ يتعين دو غربا سفرا دوم لا بنيو ساقوم موم لا نيو ديسيرو ساقوم خطي دا فا ام ديك دوم يا ام ديك ديك يا غنا ديك رب ñu daas ko ba mu ñaw poson ko def ko ci safara ba muy gàkk moom lañ lay jox fa force nga nangu ko dese rook soo ko saxee mu bënn si tuñam ko moom dëkk ya te mu xott si put su jàllee benn sag mbaq jàll ci suuf suuf rob fa ñu doxa fa ñu doxaat fa ñu doxañaat la beneen te dinga ko nangu ndox mi ngay yor mi ngay naan kaas yee loxo sa loxo boo ko téyee kaas bi wéyal say baaraam soo ko sa soo ko soxee mu mu mu boole sa mbaq ak say xalas sotti ko ci suuf te nag dañ leen sensé yaram ba ca bu ne juróom-ñaar fukki yoon danañu lakk ba dootuñu ko yëg ñu sensé waat ko lakk ba dootuñu ko yëg ñu sensé waat ko kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan xayraha lu tax li yuzuqul xalaaba waa safara kenn ku ne sa deru yaram talaayu doxu ñetti ñetti fan la ci girim pour nga mun a dékku mbugal bi jiit ju toll ni mbaam ngonk munu la fett ci yaram bi waa àjjana it ni ngeen bëgg a dëggale lii mënu ko dékku ci neexaay dañ leen di yokk kattan buñ ko mën a dékkoo ñooñu aaya yu tiisoo yoo leen indi jaawu bil ayaat wa jaawu bil xasawaat wa jaawu bi waccin masuuli am na ñoo xam ne nabi dafa rafet ñu di ko xool ba tuub da ngay jóge ca banlieue ba ñëw Dakar di dugg si fekk muy waaraate nga xool ko ne kii di boobu juddoo depuis musul ko gis marchandise ga doon jëndi de mais fa ngay nekk ba bitig yi tëj nga ñëw fekk magasin yëpp nga ne accessoire di dellu ngoon rombaat ko taxaw fa ba six heures bitig yi tëj nga faf fa am un mois faf ñaan kër tout ñoo sax it baax doon jaaw bi wàcc in ma suuni suñ borom dafa defar na bi saa yu rabaate soo rafetul jikko soo ko gisee bëgg a taaru soo rafetee jikko nee naa ku ko gisoon ku yàlla mayoon ba gis na bi daa gis ku rafet a rafet ku jëfante woon ak moom daa jëfanteeg góor ku ko tàllaloon loxo ñaan ko tabee tabee tabe ku ko tooñoon te du yàlla nga gis ku mën a jéggale te du yàlla te du yàlla ndaw si jëkk sàcc te yàlla ne saariqu wa saariqatu faqatiu aydihima juddu bu yéeli ci Madinatul Munawwara bañ ko jugé te dëggu te sàcc ga dëggu na bee dogal boppam loxo parce que moom moo doon procureur général moo doon imaamu ratib moo doon professeur bi jàngale moo doon général d'armée bi yëpp la kilim kimile woon jàkk ja quartier la woon école la woon tribunal la woon jàngukaay la woon moom kenn moo doon doxal loolu yëpp lu ñu tasaare tey ci àddina bi mu bëgg a tëb moom kenn moo ko doon doxal ba mu téye ndaw sa te bëgg a dog loxo bi Seydou Ibn Ali Siti ku ne bi bëggoon la mag ñi dañ ko dee ko yow ku la bëgg la dama tiir waat ko mais bu ñu ñëwee di wax moom nabi dafa siggi mais maa ngi gis nabi ni bët yu xonq mu ne ma yow yaay jéem a tiir waan ku yàlla teg loxo wa tallahi alazim géej naa ci màggug yàlla law anna fatimata bint rasuli soriqat la qataatu yadaha fatimatu sama doom ji maam rul moom bu sàccoon ma dog loxo nee na bi nabi tegee loxoom ci loxo tenk ndaw si di ko dog ñu ne gis ne loxo yi ñun loxo yi nabi loxo ngir ngir ngir yërmande ak ne bon bët yi xonqe ngir nar a àggali santaane yàlla ñii taabee leen indi ñii jaasi ya leen indi ñii aaya alquran yu mété leen indi yooyu yett yépp nag la Maodo rënkale ci benn benn way dama wax nag ne yéen waa sant yàlla ak mbokk yi leen wuy si ak ku tant tant bu mel nii ku mu doon war naa wax yàlla jërëjëf ndax kat yëf yàlla du ku mu neex nga bokk de ah soo feebaroon di nga ñëw mu ne fa ñu amuloon droit feebar loolu soo rafle woon boo ñëwee rus du du nga ñëw amuloon droit tubay tëli ticc soo jàqoon benn suba fu may dem di nga ñëw mun la woon a su mun la woon a suur fitna yeeg naqar yi soo feebar la woon koo mun la jox ginnaaw doo ñëw ñëw yëpp mu fanqal la ko sawaar loola nag gën la la xew nga ñëw ku nangu nguur ak yàlla gi dëggal ndawal Moustapha li nangoo siiwar alxuraan soo dee dem ajana am déet lu yàlla wax ca ca bàqara saalimu wa basiri alladina amanu anna lahum bi anna lahum wa basiru alladina amanu anna lahum alquran ay liggéey noonu waaye baaj ji abbas jàngaale dëggalal ma alladina amanu ñooy ñan ñu nangu doon ay buur amul xam nga lu muy firi dana firi dëggal dana firi ngëm su dee côté yàlla ngëm lay doon bu dee côté Mohammed dëggal lay doon la si ne gars yi nga xam ne amuloo gëm nañ ne maa buur waaw amuloo ñu dëggal it ne maa yónni ñu Moustapha noonu lay firi amano bu dee yàlla ngëm la bu dee yonent dëggal la woo ba si ne dëggalal ma ñan la si ne gars yi nga xam ne amuloo gëm nañ ne maay buur man kenn lu yëngu man la lu dal man la lu rot xam naa lu lëndëm ak lu leer laa yenal le maay dundal maay dekkal maay tooxal maay feddal dinañ koy teew sax ci wax fasa ngi ne wax teggin duñ ko féete lu bon gisal qul la malika al mulk ta'ti al mulka man tasha wa tansa al mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika al khayr bi yadika al khayr na pat loolu teggin la yaa jox nguur ku la neex yaa koy foqal ci loxo yi ku la neex mu di fi dund mbaa mu jeex ñu rabi ko keneen jël yaay teddal ku la neex donte yow yow ko woon yaay toroxal ku la neex donte ci teraanga la xëy yaay teddal ku la neex donte ci mbaadoola la xëy yaay toroxal ku la neex donte dafa fanaanoo ndombal tànkit nga wéy ci melow yàlla toxrujul xayaa min al maayib yaay fekk yéefar mu jur waliyu wa tuxrujul ay mayyita min al hayy yaay fekk jullit fexe ba mu jur yéefar yéefar bu ñëw kukk bu jigéen ak yëfa bu ñuul kukk bu góor ñoom ñaar ñooy jur tuubeen tuubeen yi jur julit julit yi jur alim alim yi jur waliyu waliyu yi jur wëyu mu delluwaat nag noonu la addinay doxe rek toolu ji lay la fi nehéeree allahu akbar bëgg gu leer ñetti gaay bi bu nabi monsieur di waxtaan yër seen leen nii daf naa eh bu kenn waxtaan ni démb am parce que ñett ñooñu ku ci ne sa bàyyi def nga nëbbi loo xam ne suñ ko ñetti leen nga rus su leen teenee ci jotaay bi nag danaan bu kenn dem àllaaxira su li fa jëf joo xam ne day ku ko def ka ko def dee na bu yàgg nga di ci toroxal koy dund ikka ikramatu ca la woon xam nga ku ko jur abo jéelil kabiira wa fi mu jaar ak rasulullah foo yër ci téere ñu ne an ikramatu an diw an diw mu jëne nekk ikrime rasulullah te abo jéeli na ko jur akan omar ibn hash xam nga ko jur walid ibn muqirat xaasim ibn waahi la ko jur te moom mu jë nekk gouverneuru keer mooy indi lislam keer na bi dund ne ba dee islam jéggiwul ardu ijaas ardu ijaas dund la waaye na bi jéggaliwul l'islam na bi jéggaliwu ko gen dex wala gen géej ginnaawam la gars yi xuus géej gi jàll ko sinon Omar ibn Haas Haas ibn waaye la ko jur kooku ni mu bañ a rasulullahi ak bu ñu la nekkoon digganteeg moom doom ji mujj nekk gouverneur ci ci l'islam ak kan Xaalid ibn Walid bi suñ la joxee pasan sax nga di ko lekk ne bisimilah Xaalid na bi ne dina rees xam nga ku ko jur Walid ibn Muqirat ah waaw de Abbas ne ki yàlla xas bàyyi yàlla xas na ko kër bu ñu tuub gars yi dañ ko ne amuloo jom yow li alquran wax te bàyyi yow ñëpp waroon tuub nga des mu ne Issa Dia al xaqu zalal niqaah gor bu gisee dëgg nangu ko te kii la mu yor dëgg la yàlla ni mu xasee bàyyi waa jooju kenn musu koo xasee nit déedéet dafa xas jikko ji la jikko xas ba teer yemu ca mu xas bind ba yemu ca mu xas juddu ba moo mën a xas te ku xas sa jikko yemu ca xas sa bind ne ak a dëngi tànk or koto ne nopp yemu ca mu xas sa juddu boobu xas sa fi la yem wala tuti kul alaafin maayinin xalaaf na bi rikkuwaay rek rikkuwaay bu topp xaj bii waaye da la wax kat walin mu xirata da doon dàggante teg na bi wax ko wax na bi wax bu ñaaw sutam ku tuuboon la ñëw na ci rasulullah ne ko tuubil ma fii pour sama maam tuub bi ci dëgg tuub la ñu wax ko ko mu ne ko lii lan la doon mu ne ko dama bëgg yàlla dugal sa xol bi leeri liimaan nga si di ngën ji mbindeef la daf ko wéq mu tuuru wax bu ñaaw la ko wax wax bu kenn dul def sax kiram te bal te fan lay tuur ndox ci pot nga jox ma ko ma naan tuur ndox moo di dem ca wana ko waxuma fat ndaxal wax waxuma fat fat ndaal yi waxuma fat fat ndaal yi tuum ci tuur déedéet tuur ndox mooy la nga naanoon démb ak la tuur diite abbas dana yaa noonu léegi yëfi yàlla du ku mu neex bokk ku mu bëggul nga bokk ci doo ci bokk mas naa ko fi ne sax daaw xam fàtte ngeen comme déet dama ne wa rabbuka yaalaxu wa yaxtaa maa kaana lahum ixtiyaara bu ngeen gëstoo it yéen ñaar la leen gaa yaa ngi xoolante di okkante ma xool leen ñu daal di gëstu keneen yéen la antuma yàlla yëfam bi ku mu neex la bokk mooy délégué ñu ko neex gouvernement sax buñ ko formé président de la république cabinet moo koy tànn ba nopp bu tànnee ba noppi ne ministère yi ci des jël leen yàlla dafa daf fi indi ay yëf indi fa ay nit yëf yi mu am ci yu mu moom yu mu moomal boppam nag mu am ay nitam yu mu ko dénk wa rabbuka yaxluqu wa yaxdaaru maa kaana lahumul xiyaara ah président invité añ rek tax na ko xiif añ ah président invité ne tey añ ma ne mën naa tax ku xiif rek dem ku fa dem tey boo carte boo yemee ci dañuy rek am nga chance ngay comptable ba waaw président mi fi ñëw démb maag moom du fi jóge ginnaaw ëllëg su mu nee ñoŋal yëfam ba ku mu neexul du ci dugg masa yàlla alamul xabi wa saadaat ki nga xam ne laa ilaha illa hu alxay alqayum la taquduhu zilna wala noom lahu ma fi samawati wa ma fi ard wa ma baynahuma man sallasi yasfau indahu xanaa ilaa biiznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma xalfihim mën naa nekk téyoog nasru bil aksi mën naa nekk téyoog nasru mansuus ci ata bayaan wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a وشاء كرسيه السماوات والارض ayatu kursi am na ñaari arta benn bi ci suuf lay maas bu juum benn bi ci kaw lay maas wala yaxuduhu yaxudahuma wa huwa aliyul asim gars yi déglu leen rek góor daa ngay joxe mooy kan yàlla ngay joxe maay kan laa ikram fi diini xad tabayyana rushda min al-xay yëf yi leer na nañ faman yakfur bi taaxuuti wa yu'min billahi na wóor borom ne faqad istamsaka bil urwatil wuthqa laa nfisama laha wallahu samiul alim bi solo am na nag ñaari parti am noonu am nañu président am na ñu ne feneen am na ñu nelawagul ah guddi gi am na ñu nelawagul ci ne ci leneen lu dul lii. yàlla siise na nu nag ñun ñëpp mu ne allah waliyu lazina amanu ñi gëm sama nguur nangu yónnanteeg Moustapha gëm dekkal gëm na dinaa duma dinaa fay ñooñu maay seen maay seen président maay seen njiit lan may defanteeg ñoom yuxrijuhum min asulumaati ila nuur waaye wala si naka wala wala yowma taaxoot atte bayaan bu réy ngi foofu sàlliw allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min adulumaati ila nuur lu waroon a tegu foofu bu mu xaabal amoon kañ bu yàlla ne man yàlla maa yor na si jullit maa koy teg ci yoon bu jub bu mu xaabal amoon daf naan iblis a yor ndasuk yéefar yi moo leen di dugal ci lu bon waaye nag du fat tur iblis bi sis ko ci bosom ba mu ne allahu waliyu alladina amanu muy mubtada jumla ji di xadra yuxrijuhum min asulumaati ila nuur waxul woon ne wa taaxootu waliyu lasina kafaru daf ne walasina kafaru awliyaahum taaxut ca gannaaw a gannaaw gannaaw yuxrijuhum min nuuri ila sulumaati ulaayka asaabu naari hum fiha xaalidun sadaqa laahu sadaqa laahu yoon waa ñi ku teggiwu sa tànk ba su rootee rek nga tabbi àjjana sun borom ne na njool màkk te ku bu rëy ñàkk gëm alxuraan baaxul jàngal lan xam 66 67 nee na ko wa kasaba bii qawmuk wa huwa alxaq allahu akbar wa kasaba bii qawmuk wa huwa alxaq dégager telle responsabilité say mbokk ngi weddi na samay mbokk weddi nañu samay wax waaye weddi nañu dëgg de ne leen nag ma ana bi wakiilin aleykum du man maa leen di garanti ëllëg bu ngeen dajeeg ci ngeen weddi lastu aleykum bi wakiilin waaye daal li kulli nabiin mustaqar allahu akbar lu ñu date lu noppi lu lu ñu date lu ne dina agsi ndéem kaka date wax na dëgg kañ lañ dase woon jàng yi yàggul waaw ma ne ma ñëw sax ci yow wala ci man li kulli nabiin mustaqar te te yow bu ne am na bés bés bu ma tax a ñuy suuf bokk ko ci bokk benn poqati benn poqataani malaaka moo xam ne ci malaaka yi gën a xiiboon la suuf yi juróom-ñaar moo koy bokk bu ñuy dem bés pénc asamaani juróom-ñaar si julli bokk ko mel ni ko demoon xew-xew ba mu tas nga bokk sa basan di ñibbi wa samawaatu matwiyatun bi yamini subhanahu wa taala li kulli nabiin mustaqar tey tey loo bu ne am na bés bés moo futtee ñëpp te lu man kenn bés moo gisee jant ba ba ko ne si yuur di bax nga xam ne safara termi bi sërërin kal xaasri ka annahu jimalatun sufrun di ngeen xam ne tey tey loo bu nekk am na bés li kulli nabiin mustaqar lu yàgg-yàgg wa sofu taala moom bés bu ñu jiitalee safara muy ñëw juróom-ñaar fukki ceen lañ koy ceene ceen gu ne juróom-ñaar fukki malaaka koy téye muy xafaraay pour somb si nit ñi di diri malaaka yi li kulli nabi mustaqar fa sofa taala bés penc sa tànk dina tegu si junney tànk junney tànk war ko ngir seeraas bi sa der day fas day day robeeku di tuuru ngir ngir jonjante bi kenn ku ne di nga dégg su yuuru moroom di gax bax naan bax bax xat xat ngir tàngaay bi sekk li kulli nabiin mustaxar ngeen dem tuuti tey tey bu ne am na bés bi nga juddee di góor fer dañ ne di nga xaraf di nga xaraf nga defi caaxaan bañ na ginnaaw leen la nga defi caaxaan dañ ne tey la raw buum yi ñaanaan bi ñëw paaka ñëw li kulli nabiin mustaxar di nga génne ñu ne sa morom yëpp takk na jabar nga naan moom man fu ne jar ba am jabar ngoro feeñ d'accord feeñ may bi jëkk dugg ñu tudd bés ma ngi daje si jàkka ja ne alxayri diw diw li kulli nabiyin mustaqar ba sa fa taalamoon daala mu sa may doom ne ma ko maye sa baay da toog ñaari weer soxna si deret ji soppeeku loolu bu ko ko docteur ñu xool ko ne mu ngi ci ñaari weeram mu am neuf mois la ñuy wax maqaadu dikkal ko te moo di aw mat boo gisee mat di métti doom jay décoller pour war a génn parce que xale baa ngi taxaw ci biiru ndeyam day taxaw waaye day mel ni élastique bu yaay ji toog day lem buy jóg day jóg su dee góor fiiraay fiiraa ngay yàlla àgg na ci góor soo ko ëmbee yow jigéen du la jox kanam ginnaaw la lay jox su dee jigéen nag da ngeen di dëppoo baaraam yi ngay gis ñu xar ko dara taxul ñu xar ko boo amee boo amee bande da ci takk foog cat la nga xar ko baaraam yi la ñu rofale kola koog deret mu yax si seen yaxut digg ginnaaw yi ay def nag allaser boo xam ne du ko seere buy jóg nga jóg buy tëdd nga tëdd buy daw nga tëdd ngay daw bu toogee nga toog soo toogee nag ba gën a àddina jot yàllaa yebal docteur kat xelam àggul ci sant xale bi wëlbatikul yàlla naan gos bi génn ngi jot te kat lu yaar ak lu sew ku koy génne soo bëggee mucc da ngay jiital la yaa mbagg gën a yaa ay yeel su yeel jëkkoon a génn nit du juddu mbagg yi day tag suñ borom na ko tourneel de classe boobu muy def nag def ñuut ñuut ñuut yaa ji di tuur lu weex di tuur lu weex mu naan ñuut ñuut ñuut ba mel naan ne circonstance bu mel ni may na ma gam ba tey àddina naan ne yokku naa ba tey ci lu mel nii yàlla ngir mu ndem arbitre ne bàmmeel mu ñëngil àddina yokkul xale bi ne sa wet juddu لكل نبي مستقر سوف تعلمون سوف تعلمون فسوف تعلمون سوف أعرف التسويف له يعلن أنا كثير جنن من ينترى أفلا تمعتمون أأنتم تعلقونه أم نحن خالقون dengan dengan joteeg seen soxna yi ndox mi ma jëlee ci seen gannaaw placé ko bi bërsetee da ngeen sol buus dugg ci biiri ndaw sa defar doom ji wala da ngeen xëy rek sangu liggéey man ma des fa yàlla ay laaj kenn tontu le afaraytum ma tumnuna a antum taxliqunahu am naanu xaaliquun kuy bind kuy def lu kenn fekkewul lu la neex def yàlla bu ko neexoon sa jabar dina wasin nga yuuxu parce que dina indi loo musul gis waaye ndeysaan yaakaar gi nga yaakaar ne doom ngay am moo tax mu jox la doom léeg-léeg sax mu fexe ba nga niiroo ak moom te ba mu koy def fekke woo ko kuy def la fekke lu ko neex def afara'aytum ma tumnuuna a antum taxliquunahu billahi sama yoon wii ma tukki li tax tukki baax dëkk bu ñu wax Yaawundi ci weer wii génn ak soxna wusit na fa doom nit ñi dañu mujjoon di ko seetaani bopp ba nit la li ci des di bonaat wallahi jàng na fa ay bi daf ma ko fàttali ustaas Yaawunde nit juddu na fa ci weer wi mu ngi ci journal ya doom ja bopp ba di nit la ca des di bonaat professeur boo ko seet di docteur na ne bopp xale bi bopp liir bi bopp fukki at la bopp nit ku am fukki at la ab gune la fa bu am at yu bari mën a gën a jóg taxaw dégg naa nag lu seen warkat sogg moom kenn mu lekk am poids doomi toskar yi yemu ca di fiire yaay jeeg baay bi baay bi ñeme ñu tala jegeñ yaay ji bu ko jege ñu bu bu ko fëggee ko fëggee góor gi moo xamadi lu dem abbas abbas ndaw ci sama doomi nijaaya ki jur baayam ak ki jur nguy sigi jaay ñoo bokk ndey ak baay ma xeet ma may dal ca këram taagu yande la ak siga yande taagu njaayee jur seen mooy jur siga jur nguy dama fekk doomam di ngénte ma ne ko foog nga jox ma yeeli ma abbas a ngi luñ la waroon wax nag ñu ngi ko koy wax rek waaye moom ko doon góor la waxuma yeeli maam sax waaye jox na ma yeeli papa wax leen ma ma tumnuuna a antum taxliquunahu am naanu xaaliquun bi ngeen ànd ak soxna yi ba ma jël li ma soxla teg ko fu ma ko teg te atelier boo xata ni biiri jigéen ouvrier bu toll ni malaaka dafa liggéey génne fu lu waloore ni nit doo ko fekkal ci benn atelier atelier bu xat bu xate ni biiri jigéen ouvrier bu toll ni malaayika liggéey fu lu waloore ni nit liggéey yi mën a jàngat dem ci weer be avion yi naaw ak yëpp wax naa leen daaw jég na leen man nawaguma xam-xam ni kenn balaa maa naw naw naaw xam xam-xam kenn ñu fexe ba dee jóg fi dee mu soof mi tas kër yi te ku ne ak suñ suñ dëgg waxul dëgg ak si na seen dëkk ku man dara na ci wax lamb maa ngee laaj yi lamb maa ngee laaj yi innama takunu yudrikum al-mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada lu sant na lii bari bari lu pale yi kowe kowe lu mu def fatt fatt luñ ci def def courant sama ndaw dina ko bëtt jël ki ma soxla innama takunu yudrikum al-mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada ko am man mën na wax ci dee waaye dee mu soof mi di tas kër yi ba mu xew yi waay waaye Abdou Gueye lamba maa ngi lamba maa ngi lay naa mbër mu ko seppi waaw fexe ba dee kenn dootul dee sun borom ne seen doom yi ngeen di tol to toftaloo dama koy bind fekk leen ko yaa ngi bureau ba wala atelier ba mbaa yaa ngay nelaw lu ma neex def